loolu nag moo ñu def ak moo ñu def xaal ba. Mhm. saa bu del seetee. Mhm. xam ne sëñ Tuubaa lu ko suñu borom ma a jox. Mhm. ci ay xéwal. da koo takkaat ak laxasaay ci ndigam xool lu gën a kawe loolu. man lu gën a kawe lii ma nekk laay wër waaye wutuma seex gi. waaw mhm. ndax seex moom. seex mhm. lu lu bon la rek. waaw ndax yaakaar naa biraa ngay del wax na ko jawee ba. seex mhm. day seex lu bon day xeeñtu mbaax. waaye xam mbaax gaa ngi. Oh. ñun nag xam baax rek lañ bëgg a def. bëgg baax bëgg a ànd ak taalibi sëñ Tuubaa yépp nag. dëgg la amuñu xeej ak seen ci liggéeyu seex la Lamine Bara bi. waaye nag képp koo def sëñ Modou Lamine ni nga ko war a def. ñu def la niñ la war a def. jotaay daal ñu ngi koy woo ñëpp di xamal ñëpp ni ñun ay taalibe képp lañ fa séenee doon kees tamit seen jaam jaamaat lañ bëgg a doon ngir liggéeyal sëñ Tuubaa seen jëm yi waaw ndax sëñ Tuubaa daa fonk taalibe mi asalaamaaleykum wa taala wa barakaatu sëñ Ablaye rek <laughs> eh, sëñ Muntaxa lu mën a ñëw ci lu mën a ñëw ci moom rek mu ne takkawaat mu takkawaat ko laxasaay nii maanaam jëf joo andi it mu def ko laxasaay ci moom rek waaw mhm. ñu jumaa de ola lañ koy takk suñu digg fas yéene tamit aajo ju dugg suñu nopp faju fas ne tamit liggéey bi ak jumaada ulaa bu teroo du yem ak weer wenn weer ci man mm-hmm. ñu bëri xam nañ ma ci waaw ndax daan naa wax muharam sëhri mm-hmm. saali ma ngi ne toog mm-hmm. ndax muharam bu masaane teroo sama xol day sedd nga xam ne wallaay bëgguma nit ñëw man mukk dis ma aajo te faju ma ko waaye nag jumaada ulaa daa ñëw nangu loolu ah. <laughs> ndax Cheikh Mohamed tamit li mu ci feeñ dëgg la moom yemut ak benn weer ci man takk der gi nag première jumaada ulaa ñaar fukki juróom-ñeent yee bu ñu ñibbisee Mbacke Kajoor tekki ko. Hmm. déwén ñu takkaat ko incha allah ànd ak yéen liggéey suñu baar bi. jërëjëf Serigne Cheikh Bada ñu ngi ñaanal Serigne Mbacke Madina moom Serigne Abdou Khadim yàlla na fi yàgg te wér ah, moom lii lépp moom la waaw ndeysaan. léegi sëñ Maam Góor waaw damay damay wax Cheikh Bada mii. Mhm. imaam mii. Mhm. daa am lu mu indaale wute te dara laalu googu ci ndeysaan mu mën koo xam beneen yoon nag dañ wut jataay boo xam dañ koy tuddee mu àll faatu si Mouhamadou Lamine Baar waaw maanaam taalif sëñ Baar bi nag damay ànd ak damay ànd ak yéen de télévision Thiès TV day dem Mbacké Kajoor ah, ah waaw waaw foofu day waaye xam nga dafa dafa am loolu neex loo wax léegi mu neex ma mm-hmm. sëñ Baar dañoo xam ne ko xaree ñoon la xakim mm-hmm. la woon ba pare daan métier yi mu mënoon ko mm-hmm. ca la ko naar bi fekk woon muy defar otoom da mhm. ngaa tudd oto léegi moo tax mu neex ma mu ne ko yow nit yàlla ko doy ni yow nga yor oto bu mel nii mu toll ko ci ñaari baat waaye teewut gaaya buñ gisee waaja xam ne waaja waaye nag baatu gaaya la ko wax ak waaja mhm. bu gaaya gisee waaja nañ xam ne waajaa ngi mhm. kon nag boo tuddee seexub seex baara ñëw fii tudd oto ca lañ nekkoon ak lool loolu dafa ñëwaat ci man ci Cheikh Mamadou Lo Bara waaye ma gisaat beneen tour mhm. u yéeme mhm. Cheikh Bada Ndiaye Kéemaan waaye Kéemtaan sëñ Baara bëri Kéemtaan waaw mel ki eh, ni Kéemtaan gi bëgg wax benn débat ma ñëw kii daa mel ni mënuñu koo bañ a jël bismillah waaw bismillah waa te da ngay wàññi télé bi te déglu ci téléphone bi waaw maa ngi leen ziar bu baax a baax ñu ngi delloo ziar bu baax kooku ziar ziar Cheikh Bada Ndiaye waaw ndeysaan. maa ngi jox ko micro bi. yow taa rafet na trop. ndeysaan. siyaar di siyaar sëñ Mbacke Madina. te siyaar di leen siyaar yi ñëpp Cheikh Bara Ndiaye. ndeysaan yi. ngeen def nii yar na ko yar na leen yàlla fay. amiin man Aïda Diop tante sëñ Mbacke Mbacke la. ndeysaan soxna Aïda Diop waa kay moom day. ah kay tante sëñ Mbacke Mbacke Kajoor la moom it waaw. <laughs> ah kay Ndiaye. ah kay Diop kontaan nañ lool. ngeen bëgg yàlla na leen ko yàlla defal. amiin yàlla ngeen koy defal ay ati at. amiin Mbacke Sama barke sëñ Baara Mbacke. amiin Mbacke Sama. ah kay jërëjëf Ndiaye. jërëjëf Diop jërëjëf jërëjëf. jërëjëf jërëjëf soxna Aïda ndeysaan jàmbaar yëpp ngi toog fii may waxee yow nii euh, jàkkaarloog Thiès TV. waa dégg nga ko waaw <laughs> ah, noonu la mel gars yi dañuy rakkaaju fi mu ne Pangol ah, euh, test test bi mel noonu. sëñ Mbacke Madina laa bëgg a siyaar rek. Euh, soxna Faat Diop ñu ngi koy siyaar. Mm-hmm. ndax ñun moo nu yar. Mm-hmm. bokkoon dëkk instant. lii sëñ Ba di wax ci moom dëgg la. ngi mm-hmm. soxna soo xam ne mën naa jur ku ne. waaw ah, di jàmbaar. waaw ah, moo tax sëñ Mbacke. loolu mu ne ci moom da koo doon. waaw ñu ngi koy ñaanal moom itamit yàlla wéral ko. te àggale mission. waaw waaw bisimilah. salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. sëñ Maodo. ñoo ngi siyaar kooku. ah man la Mbaye Ndiaye Ngom. Mbaye. Mbaye Ndiaye Ngom. Mbaye Ndiaye Ngom mel na ndeysaan. Mbaye Ndiaye Ngom xalifa bi. Ah, waaw waaw waaw. Ah, ñooñu nga toogal xalifa sëñ Cheikh Ngom. ndeysaan waaw di a image si loolu yëpp ñoo ngi koy ziar bu baax. jërëjëf Ndao jërëjëf. daal tey bala moom. Mm-hmm. wax ci moom wax suñu bopp la. dëgg la. Euh, taalibe Sëriñ Tuubaa la. Mm-hmm. di ko liggéeyal ci jaam yi. da wàcc boppam lool. ko. incha allah waaye di liggéeyal Sëriñ Tuubaa. te kuy jëf biir Sëriñ Tuubaa rek. Mm-hmm. bala nga am jàmm rek da ngaa woo suñu dara. incha allah bu li ma am ci xewal la ko. Oh. da nga xam ne moom mii suñu baara rek la gëm. ba léegi kenn ku nekk. Hmm. jàpp na ne suñu baara suñu baara bopp la. waaye ñun hmm. dañuy bokk ci moom. Hmm. di xarit ci moom di sopp ci moom. Ah, waxuma sax ñi toog waaye ñi ñi jàkkaarloog moom. ñoom sëñ Lampa ñoom Cheikh Mouhamad Dieng. ñoom ñoom Pape Ndiaye ñooñu ñi nga xam ne nii. Sëriñ Tuubaa rek la ñuy ah dañuy nekk seen fulu Serigne Touba kon suñu bëri moom ñi ma àndal ñoo doon la war a